salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna ñu ngi nuyuwaat ñëpp di ziar ñëpp donc tey vidéo bu du gudd dañu jot benn information comme quoi que actuellement gendarme yi dañu encercler kër Idrissa Seck fi nga xam te ni fi la opposition war a def seen point de presse après bu résultat yi génnee dafa am ñaari mbir yu ci am le fait que ñu encercler leen cela signifie que kon am na ñoom lu ñuy waaj te pourtant opposition bi rencontre bi ñuy def foofu noonu pour def seen point de presse point de presse bi xamagul. ci lan la mën na am que ni bu juge bu waxee que ni Macky Sall dafa jàll premier tour ñu def seen point de presse félicité ko mën na am que ni su Macky Sall su juge bi ne dafa jàll premier tour ñoom ñu def seen point de presse dàq wax jooj parce que après résultat yi ñu jot ku ne xam ne tey jii nii ci yoon deuxième tour moo war a am mais li nga xam te moom la ñuy nas seen biir ba tax ñu waroon a joxe résultat provisoire yi 11h ñu dàq ko ba 12h30 midi 30 kon man nag li ma ci gis sama jàngal bu ndaw dañ bëgg yokk sécurité bi ba nga xam te bu ñu joxee seen résultat dinañ mën a xeex ak ñi nga xam te ne si ñoom ñoo paree pour jaamuwàllu ak ñoom loolu dong lañ ci mën a gis mais juge Demba Kandji yow mi nga xam ne yaa war a joxe résultat yi xalaatal ni résultat yooyu ngay joxe ay millions et millions de Sénégal nga ko war a joxe te cinq ans du lu ndaw kon lépp loo ci def rek na nga xalaat ni ëllëg day am ñu ngi nuyuwaat ñëpp di ziaraat ñëpp